Jame kay maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay di la ziar bu baax a baax di la nuyu di nuyu sa caméraman di nuyu sëñ Abdoulaye Diop xaas mi nga xam ne moom moom site internet bi di nuyu njabootu làmb yëpp di nuyu képp ku fi teew di nuyu suñuy xarit su ñuy am di jàmm di nuyu ku ci mel ni Abdou Dramé sunu xarit la bu baax a baax ñu ngi koy ziar bu baax di nayu booy Niang ak mi nga xam ne moo waral lii woote na njabootu làmb la woo njabootu làmb uysi nañ ko. ñu ngi ñaan bés bi yàlla nañ ci dugg ak bisimilahi rahmaani rahim génn seeg alhamdulilahi rabil alamin initiative bi nan nga ko gisee li Boy Niang def. waaw rafetlu ko. ndeysaan. ndax nekk na mbër moo xam ne mu ngi en activité di bëre tey lu mel ni bu amee mu woote wax ci loo xam ne lu war a yóbbu làmb ci kanam la wala luy jëriñ làmb la képp ku nekk ci làmb da nga ko war a rafetlu moo tax ñu ngi rafetlu lu waral jotaay bi bu baax. ñu gis ne gis nañ fi mbër bu nekk. bokk ñii bokk ñoo boo Niang écurie ñii ay adversaire am la loolu ban jàngat nga ci am. waaw dañuy wax ne li c'est la force boo Niang tey bés bi ku mu woo ku mu woowul ñëpp a war a ñëw ndax lam ba tax ma koy def moom lutteur la rek chaque année benn yoon lay bëree comme ay nawleem ñun ay promoteur lañ mën nañ tëgg 4 journée ba 5 journée waaw ndax li muy def ni du pour boppam pour ñëpp la kon ñëpp ko war a wuyu si kon tey képp kuy mbër promoteur amateur fans club boo fi ñëwee dafa jaadu waaw li ñuy wax rek mooy li ñu fi dajale yàlla na fi njëriñ jógee te am nañ yaakaar ne njëriñ dafiy jógee ndax ki ñu woo xam nañ mooy kan xam nañ ne nit bu la woowee dina la wax mbaam mu jox la rawatina ku mel ni moom kon ñu ngi xaar tey lu fi mën a jógee lu mën a jëriñ làmb te am nañ si yaakaar am nañ si yaakaar bu baax a baax ne tey bu ñu fi jógee ay njëriñ dina feeñ pour làmb ndax ñu nekk ci làmb yëpp ay borom xel lañ te Covid 19 bi. yëpp ay xalaat dafa war a génn ay idée idée yi nag nañu kilifa yi déglu ñu jox leen xalaat yi jox leen idée yi idée yoo xam ne luy doxal làmb la ak lu koy avancé waaw loolu la xaar beneen bi mooy di lancer benn discours rek pour si ñëpp muy lutteurs yi mbër yi Fatma Dia yi nekk ci gox yi bi ñu nekkee benn làmb dafa avancé woon kenn kenn kenn attunutoon làmb ndax lu mënul ñàkk foog mu am ñëpp xam nañ ne àdduna du neex ba Balla Gaye bëreeg Lac de Guiers wala Gouye Gui du neex ba Boy Niang bëreeg Ama Baldé wala Eumeu Sène àdduna neex ba Modou Lo bëreeg Papa Sow kon ñooñu nañu ànd seen biir ndax Balla gay bi mu àndee Gouye Gui ànd ak Sa Thiès ànd ak Lac de bu ñuy bëree xajuñ ci benn stade parcelle bi ñuy ànd bu ñu àndee xajuñ ci benn stade Pikine bu ñu àndee xajuñ ci benn stade kon tey mbër mu ciy bëreeg sa nawle fexeel ba boole kook ay mbokkam ñu mun a ànd ñëw boo leen daanee nga xam ne danga nga ko daan ak ay mbokkam waaye su fekkee dañuy dugg di diffuser mbëri seen biir ñuy noonu wante seen biir gox yi bu Balla Gaye di bëree supporter la de guerre ne du dem supporter guy gi ne du dem bu Boy Niang di bëree supporter yi Ama yi toog supporter yi Eumeu Sène yi toog bu Modou Lô di bëree noonu loolu doxalul làmb ñu munul tàqali ko nañu ànd loolu mooy avantage su mbëri te mbëri nañuy discours ci loolu man su may bëreeg yow damay fexe say mbokk jàppale la ànd ak yow Pikine yëpp bu ñu àndee Géejawaay yëpp ànd stade bu ñu dajee ban stade moo attan loolu ci réew mi parcelle bu ñu àndee Pikine ànd ban stade moo attan loolu nañuy discours ci loolu ñu xam ne ànd bi mooy mooy njëriñu làmb ànd bi mooy defar làmb ànd bi mooy suqali làmb loolu mooy indi sponsor yi yow diggante 2010 2012 Modou Lo Lac de Guiers Balla Gaye fi la la fekk a Lo Lac de Guiers fi la la fekk rek dafa mel ni Balla Gaye mooy bëre géejawaay supporters yëpp dañ ñëw daje ànd ak Lac de Guiers Parcelles yëpp daje ànd ak Modou Lo xoolal keroog nu Demba Diop mel Pikine tey bu Balla Gaye di bëreeg Eumeu Sène wala muy bëreeg euh, Boy ñaa Pikine yëpp ànd géejawaay yëpp ànd ban stade moo attan loolu ci réew mi kon lutteurs yi ñu ngi leen di ñaan lillaahi wa rasul yi nañuy xool diskuur yi di refalatante seen i kàddu seen biir di waxtaan kenn ku ci nekk booy bëreeg sa morom yaa ngi dégg ndax fexe na ko ay mbokkam gunge ak ay àndandooram su ñëwee boo ko daanee daan ay mbokkam yëpp revanche dalaan daan ci lool làmb dalaan daan judd ci lool ñu ngi leen di ñaax ci lool nañu ànd doon benn lamb gis si boppam lamb gañe si man dama gëm ne 100 pour cent yi luy dundal làmb la ci kaw ñu ànd waaye suñu àndul luy rey lamb la ndax mënu leen a nekk ci benn gox ne du ngeen bëree seen biir ba pare ne àndu leen ku ciy bëree keneen ki des ay supporter am toog loolu dundalul lamb comme yàlla defal ne ba ngeen taxaw ne du ngeen bëree seen biir lillahi wa rasuli sàmm leen kàddu yooyu ba mën a ànd ànd te yàlla tax ànd ci pour luy suqali lambu sponsor yi ñëwaat lambu avancé loolu nag dañ koy wax pour digal ko pour ñëpp suñuy frère lañ suñuy mag lañ xam nañ ne ay nit ñu baax lañ ñoomi neen kon nañu ànd seen biir jumte mënul ñàkk ci àdduna waaye mistake should be allowed waaye it's not always jumte mënul ñàkk waaye dëkk ci dafa bon kon ñoomi neen nañ doxalaan ci seen biir ànd taxawal luy suqali làmb ak liy intérêt lamb sponsor yi dellu siwaat ñu avancé ci lamb ndax mësuñ ko wax ci làmb ñu demee ba koy wax rek jafe-jafe moo tax ñu koy wax jafe-jafe yi tax ñu koy wax nag yal na fi yàlla yal na ko fi yàlla jëlee bañ mën a nekk ci lu ñu nekkoon man gëm naa ne soirée saal yi muy nekk moo gën a xat te gaa ngi koy def te defuñ ko ci huis kon làmb war nañ ko mën a tëgg ci public surtout nag arène nationale bi nga xam ne stade bu bu ñu moderniser la tey kenn ku nekk mën nga ah. toog te door doo laalanteek sa morom ay ay seize lañ ko def mën nañu jël benn seize éliminer beneen ndax yaay arène nationale bi mën nañ fa tëgg làmb sans huis clos nañ fa tëgg làmb doomi avance man loolu laa ministre des sports na déglu njabootu làmb boo ko lu njabootu làmb kenn ku nekk li nekk sa bopp nga génnee ko làmb avancé ndax covid bi jàngat lañ ci war a def un an yi ñu toog liggéeyuñu kenn ku nekk boo toogee sa ruq war nga mën a xalaat loo xam ne waxuma la làmb waaye luy doxal réew mi la war a doon kon ñun am nañ yaakaar ne am nañ idée yoo xam ne waxuma la làmb rek waaye mën na doxal réew mi nañ ñu toog wooñu kenn ku nekk li nga xalaat nga joxe ko ñu xool li ciy njëriñ làmb ñu doxal ko Fatma Dia. sa candidature bi ñu rejeté nag Gambie. waaw sant yàlla xamal naa ne dig ci ñëw dafa koy sant yàlla bu baax a baax ndaw laa di liggéey nekk ci làmb jàpp ne man lépp lu war a mën a doxal làmb dama ci war a dugal sama loxo. yabu ma leen nag moo tax ma ko doon laaj dama xam ne suñ ma ko joxoon làmb ji ma doxal yàgg naa ko wax man am naa idée yu doxal làmb bi ma ko laajee nag dem nañ ba ci biir commission bi rejeté nañ ma ma defaat recours ñu rejeté ma waaw looy looy ree Fatma Dia Fatma Dia présidentielle moo gën a rëy élection présidentielle am na ñu yàgg dugal seen candidature ñu rejeté la ñu dem coalition man bi ñu ma rejeté tamit am naa sama ngor coalition wu ma bokkuma Benno Bokk Yaakaar bokkuma ànd suqali làmb maa ngi toog sama coin li tax ñu rejeté ma nag mooy close yu ñu teg mooy dama signé ay combat moo tax corona bi lor na ku ne man lor na ma. ndax sama lamb yooyu su amoon daaw amul fu ma nit mën a koyee waaye li ñu jàpp signé naa ay combat combat yi yeggagul mënuma participer dem naa ba ne leen damay démissionné waaye ndax jam production mbooloo la keneen jiite affaire ñu ne man maa signé combat yi ba pare. waa man nangul leen ko di wax ne combat yi dina jeex ak jàmm présentement Mister Shut bi Alaahu Duwaaye Ousmane Oles ñu ngi demaat ci kanam maa ngi ñaan balaa jamono balaa boobu di ñëwaat ñu fekkee ko te tal ko boobaa day fekk pexe yi gën a bëri idées yi gën a bëri doole ji gën a bëri su boobaa nag attention ku taxaw ak man du baax si yow.